wala ci ay artistes nga xamante ni le temps que artiste bi di changé am beneen artiste bu ñëw def playback. waaw. ñu woo artistes yu bëri nag ñu bëri mm-hmm. amuñu visa. ah ok. parce que jamono ji coronavirus la ambassade mayewul visa. waa dëgg la. est-ce que léegi nee nañu yu am visa en cours. ñu woo mm-hmm. leen. Mm-hmm. noonu la ñu woowee Ndiolé Tall mu ne day ñëw. woo salaam Diallo mu ne day ñëw. woo Aïda sàmb déggoog moom ci kase billet d'avion ak ñëw mu war a ñëw. Uh-huh. noonu la ñu woowee Viviane téléphone. Mm. wax ko ko. Mm. mu jox ñi beneen numéro nee na nañu woo kooku muy Mama Tene mu nekk Prince Art. waaw. ba ñu woowee Mama Tene Mama Tene ñu waxtaan ak moom ci cachet tout cela mu am na mu waxee. Mm-hmm. moo génne ma ah comme loolu la nañ ko bàyyi. Mm-hmm. parce que lii du soirée du concert te gratuite la. waaw gratuite la. fekk avant loolu sax Amina Poté ci boppam. waaw dañ ko ci boole woon ko mu ñëw présenté ni budget Boubs ak Aba. Mm. Aba dernière minute Pape Cheikh newu fa te moom moo nekk TFM programme bi bare moo tax ñëwut. Mm-hmm. Boubs ñëw. Amina mm-hmm. Poté bu mu déggee loolu dégg wax nañu Viviane xaritu Viviane la mu dem toog kër Viviane wax ak Viviane. Mm-hmm. léegi ci la Viviane wax léegi nañ ko fay temps du ma wax cachet bi. waaw ko billet d'avion mu ñëw comme invité. ñu delluwaat dem ci Ibou Ndour ñu ne ko Viviane d'accord na lii fekk Ibou Ndour sax beneen prix la waxoon. Mhm. moo géej na su dee loolu la nañ ko bàyyi Viviane jaru ko buy ñëw. Mhm. ba dernière minute Viviane moo ñëwaat ci ñun. ne d'accord ñu jëndal ko billet première classe hôtel bu mu dëkk. Mhm. ak ñu fay ko cachet temps. bu mu waxee loolu ñu yónnee ko avance am. Amina yaa ngi may dégg bu baax. yow rek laay déglu. xam nga contrat amul amul dara lu ñu bind ci kayit. foofu laa doon buggee posé question amul dara lu amul dara lu ñu ci kayit lépp ci téléphone la nopp ak téléphone. nopp ak téléphone. Mhm. ñu yëkkati avance yónnee ko. Mhm. ko neexoon suba sax du ñëw. waaw. su ko neexoon suba du ñëw xam nga tax du ñëw. Mhm. suñ ko nee jox nañ la avance amuñu benn kayit. waaw. yaa ngi dégg. mais lépp dama jàpp ni contrat moral contrat la parce que nit ku nekk sa kàddu nga am. Mhm. allo. voilà maa ngi léegi bi ba mu jëlee avance dem ba ci biir ba xam ne commencé nañu publicité nee nañu Viviane day ñëw. waaw. mu woote waat moo géet ne ko soo jëndalul Zeyna bi dafa war a jàngi si kon duma ñëw. Viviane a wax loolu. Viviane Dakar. Mhm. xam nga chantage commencé na ñëw. Viviane moo wax loolu. voilà Mhm. léegi mu ne kon du ma ñëw te su boobaa yéen a yàqule parce que annoncé ngeen ma pare te américains yi duñ duñ ma gis te dootuñu leen gëm. gars yi yaa ngi ngi déglu Viviane moo wax loolu. yéen bu baax. ñu ne lépp garaawul na garaawul bàyyi noonu. Mhm. xaalis du dara billet d' avion comme ñi ngi jëndal leneen nañ ko jëndal. Mhm. ñu yónnee doomam Zeyna billet première classe Zeyna liggéeyul ak Viviane du manager am du dara. non non du su waree dem jàngi yi na ko yaayam jëndal billet wala papam wala keneen jëndal ko billet. moo géej moo jënd biyam pour mu jàngi mm-hmm. voyage nag sooy voyager avion bi du avion du jet privé nag da koy bokk nit ñi. ba ñu ñëwee ba aéroport Ndakaaru ñaa xarañ loo mi ngi koy snap di ko naan sa boolu tegle yi mu daw leen taxawee ne le. Mm-hmm. bi ñu wàccee New York ñuy jël seen bagage mu taxawee ne le ñu la jëlaat vol pour Las Vegas moom mu dem fanaani kër Moussa Versailles. parce que bëggoon bokk ak ñoom mm. problème bi problème bi foofu la commencé mais loolu yëpp ñu ngi maîtriser. ba ñu xëyee Viviane egg si Las Vegas. Mm-hmm. man fi ma nekk fi ma ak aéroport dix minutes la. Mm-hmm. ñoom moo fi ñu nekk ak ñoom Babacar quarante cinq minutes la ak aéroport. Mm-hmm. comme vol bi egg si na Babacar diaspora woo ma ne ma Viviane egg si comme man yaa oto du ngeen taal seen oto ngeen def GPS ngeen dem jëli Viviane. man ak Gomis ñoo ñëw aéroport jël si Viviane keneen andu ci. gis leen. keneen àndu gis naa sonar bi ba ñuy egsee gomis jël photo di leen photo comme arrivé la événement la foog ñu photo ñëpp seen arrivé. Mm. ni ko defee ñoom buub su ñoom saa neex. mu ne ko bul ma photo. Zeyna wax loolu. gomis wàccee appareil am fekk man commencé won naa def benn YouTube live soo xoolee une minute cinquante deux la. Mm-hmm. bi ma déggee loolu ma arrêté sama live arrêté parce que nee na bul ma photo man ku force du ma la photo. si si. ma jël chariot bi Viviane. ak ay bagage am puus ko jël ascenseur bi yéegee ko fi ñu paak ci parking bi moo ubbi oto bi dugal ay valisam dugal ko ci biir oto bi. Mm-hmm. bi ma ko dugalee ci biir oto bi Viviane commencé indi ay chichi nee na moom du xaar parce que boobu Didier Khoulé ñëw na mi ngi aéroport. Euh, Mitris Couture ñëw na mi ngi aéroport. Bamba partenaire Couture ñëw na ñi ngi aéroport ñoom ñëpp la ñu war a jëlaale pour yóbbu leen. <sighs> Mm-hmm. léegi Viviane di kaas ne moom day dem du xaar kenn. Mm-hmm. ma woo Xaadim ak Babacar mm-hmm. Diaspora ñu wàccee valise yi ñoom ñu jël benn oto ñu yóbbu Viviane hôtel Paris hôtel. Mm-hmm. man ma dem jëli Bamba partenaire di jeexule ak ñoom maîtrise. ak Sankara Mbaye. waaw bi ba ci buntu hôtel bi Xaadim ñëw ci ñun. waaw nee na un problème ko lan mooy problème bi. Xaadim caqum ko du dëkk fii. ma ne ko lu tax mu ne ma parce que fii dafa bëri ay ñoom ñaar xarañ loo ñoom salaam ñoom bugg fii lañ dëkk. Ah, mu ne ma wax naa ko moo nag moo mi ngi ñëw mais moo mer na nee na kenn du ko ah. imposé cinq étoiles la wax yóbbu nañu ko hôtel cinq étoiles hmm. man Tange Tandian man maay wax de sama aqulaay taala su dee li may wax du dëgg yàlla na bu ma gis samay njëriñu doom hmm. yàlla na la hmm. mu ne mu ne ma naa ma ne ko moo su ñëwee bu mu defalee noonu Viviane suñu jigéen la na calmer xam naa ne dafa sonn ci voyage bi na xool li mu bëgg mu defal ko ko ma woo Baxaw Dioum depuis Sénégal ma ne ko Baxaw Viviane de mi ngi commencé déconné comme yow maîtriser nga ko doo woo waxtaan ak moom mu calme man maa woo Baxaw mi ngi may dégg. ma ñëw ci hôtel bi moo ñëw ñëpp dar ko ma woo mu ci pat ma ne ko moo kaay mu ne ma naa ma ne ko wàccal calme Viviane suñu sœur la nañ ko gérer. Boubs ma dajeeg foofu ba ne ko voilà Boubs. ma ne ko yow diplomate nga mën nga arrangé àndal moo ngeen toog ngeen waxtaan ak Viviane. ñu dem moo ak Boubs a ñu toog ñu waxtaan ba pare Viviane ne ko waa d'accord moom du dëkk fii moo ne ko garaawul fan nga bëgg mu ne ko Bellagio hôtel moo ne ko waa dinaa dem jëlal la suite foofu Zeyna si la taxaw doomu Viviane Zeyna taxaw di saaganteeg ñoom di laan naan xanaa xamu leen sama yaay sama yaay star la sama yaay du ñëw ngeen koy bokkaloog hôtel ak ay ñoom ñaa xarañ loo ñu ne ko xanaa yaay manager Viviane mu ne ko waaw ah bon yi noppi Zeyna Ndour doomu doomu Viviane moo indi coow lii boobu yëpp waxut. yaa ngi may dégg. yow rek laay dégg na dem Bellagio hôtel jëlal Viviane suite. Hmm. bañ ko jëlee ba pare mu woote téléphone ne léegi Viviane na jéggi xam nga Bellagio ak Paris benn da ngay jéggi tali bi. Hmm. na jéggi pour mu ñëw bagage am ñëw loose. Zeyna ne yaayam du dox. i Zeyna Ndour ne du dox di jéggi yaa ngi may dégg bàcc gumba la xaritu Zeyna Ndour la xamante nañu bu baax Amérique la ñu xamante bàcc nee na garaaw jëlal oto bi tourné jël ko bàcc bu mu jëlee oto bi dem di jëli Viviane. Mm-hmm. yaa may dégg. yow laay dégg bàcc ci biir oto bi xaadim mi ngi ci biir Viviane ngi toog waxul dara. Mm-hmm. Zeyna commencé di saaga xaadim. boobu bàcc mi ngi wax ak moo boobu bàcc mi ngi wax ak moo géej téléphone. xaadi mun na ko jur de. parce que xamante nañu ñoom ñoo xam seen Amérique guy saaga ay ndey sama yaay nii sama yaay star la sama yaay du dox sama yaay muy saaga ndey. moo géej dégg loolu. Hmm? ne man ak xaadim bu dara dul dara la boobu yoruma ñaar dërëm ñaaruma ñaar fukk. du ma def événement bu fii di ko indi xale bu ndaw di ko manqué respect. Hmm. boobu la Viviane ñëw ñu dem ci biir suite bi. moo compté xaalis bi. ne ko Sankara Mbaye. Hmm? filmel ci Las Vegas la. am nga droit hmm? filmer ci biir hôtel am nga droit wax ni téléphone enregistré ko mais amoo hmm? droit def ko Californie. état bu nekk mu ne ko maa ko fi indi woon pour show bi mais show bi dañ ko focus ci designer yi. comme coow am na. bàyyil ma jox ko deux millions cinq cent yi ñu waxaale woon. Viviane ne du deux millions cinq cent trois millions la. yaa ngi dégg wax mhm. moo géet jël téléphone am woo Ibou Ndour Dakar Prince Sarr. Mhm. mu ne ko ñaata la ñu waxaale mu ne ko deux millions cinq cent. mu ne ko d' accord si kanam mu ñëpp mu ne ko garaawul. Mhm. ne ko Viviane du mu compter ko trois millions jox ko ko ne ko lii lañ la waroon fa. mu jël billet première classe Las Vegas New York. jël billet première classe New York Dakar pour Viviane ak Zeyna. mu jox ko ne ko mënatuñu liggéey ak yow. mu mu ne Sankara Mbaye moo géej daf ko indi pour mu koy esnabal pour li muy def mu siiw ñaa xarañ loolu dañ ko jëndal billet première classe di ko fay ay millions pour muy def loolu mooy seen liggéey dañ koy def bien sûr bi Sankara di filmer yéen a ngi dégg bi yàlla ne ko loo may filmer mm-hmm. loolu ñëpp gis nañ ko mu ne ko dañ ma fi indi pour ma filmer mm-hmm. mu turne mu ne ko comme ki ma fi indi mi ngi wax mu tourné caméra am ci moo géej di ko filmer hmm. bi mu filmé Mo Gates ba pare Mo Gates jël xaalis bi ak billet d'avion bi joxe ko.